salaamaaleykum mbokkee xarit ñu seetaan suñu émission bi nag émission spéciale ci Thiès Info ak euh, Thiès TV ñu ngi fi toog ak Ousmane Diop bu euh, falaskan wi euh, dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokki xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV Ousmane asalaamaaleykum. maaleykum salaam Umar maa ngi lay nuyu di nuyu askanu senegal di nuyu askanu cees di leen wax dal leen jàmm.

ceesuwaay xetali len ak tamit aar sénégalais lolu bu ngeen ko defee ñew dab si ma fii pour lolu mënuma ko bañ mënuma ko bañ parce que dama bëgg ties dama gëm ties dama gëm Sénégal eh, ki may andal dembu li xew mo mo doy war président tala dafa doon wan sénégalais 40 ans yi nga xamante ni ci la commencé euh, ba mu poli ba mu commencé politique ba léegi ci quarante ans maanaam deux ans yi nga xam ni ci la njëkk a rencontré Masmous Diop feu Masmous Diop yàlla na yàlla yokk leeram ma di ko màggal di màggal njabootam di wax ni lii ko si laa defal dundalaat ko lu am solo la ñu ci jaar di fàttaliku Cheikh Anta Diop di fàttaliku ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni. ci jàmbaari Sénégal la noonu Talla def 38 ans bi mu jëlee carte parti politik 10 PAI donc lim doon màggal démb dafa jaadu woon ñu wane dëgg li Sénégal jaral Talla Sylla li Thiès jaral Talla Sylla ñu wane tamit ñun li ñu jaral ñu wàllu waa Thiès et li ñu jaral aussi ñu aar waa Sénégal c'est pas gratuit taala créé wàllu ñu dugg ci taala créé aar Sénégal ñu dugg ci kon wàllu Thiès aar waa Sénégal moo taxoon démb lan wane ca ñu wane ko loolu nag da doon lu spécial xam nga danoo ñëw ci biro meeru Thiès ñu ni fii bureau bii ku fi dugg rek di fi liggéey nekk fi maire rek da nga am problème ñi gëmul yàlla ñëpp loolu lañ jàpp taala gëm yàlla ni moom bala maa nekk dara di ko defal waa Thiès mooy man damay nekk surga waa Thiès nekk ci bureau meeru Thiès pour mën a liggéey Thiès moo tax toujours bi mu jëlee responsabilité yi mu jël en tant que maire de Thiès la ko def pour def ko mais ne bu newoon ci biti du ko def kon ñi gëmul yàlla mosuñoo bëgg a dugg ci bureau boobu histoire boobu waa Thiès xam nañ ko ndax ragal ndax la fa nekk beneen bi ñu ñëw ñu ni marché Sam bi kenn mënu ko fee jële mu doyoon waa doonoon bombe écologique ci waa Jaxaaw doonoon lu métti ci waa Thiès doonoon lu métti lu danger aussi ci population bi nga xam ne ak ñi nga xam dañ fiy ñëw di am diggante marché Sam ak achelem ak dixième ñu fay jaar ba gis nga jamono jee bi taale jëlee foofu marché dafa gis lu kenn gisul woon ndax amul woon kaaraange ba pare amul woon affaire wérgu affaire écologique li nga xam ne moom moo fa nekk affaire santé xam nga c' est c' était euh, affaire hygiène ah euh, donc loolu euh, taala xam loolu tax mu dindi ko mais tey buñ ko fa delloolu woon. ki fa saxaar ga rey ci marché ba nit ñi amuñu fu ne duñ fa toog ki nga xamante ni nii oto yi dañuy romb ñoom ñu tàncali ko ba mënuñoo jël si ba oto yi jaar seen tànk yi du fa am kon donc kooku bi mu day def loolu dan ko dañ lay reyal nag ñuul léegi ñun nag wu am la ndax ñi def fétiche yooyu di waa réew mi di waa Idrissa Seck yi di ko def ngir loolu dem dem xam ñi leen def leen ñu jàppale leen wan leen ni ñoom mën leen a jàppale ci taxaw foofu naan leen du fi am di xeex ak taala mais dañ ni dañ koy jaarale ci ci affaire xërëm pour def xar fa fuufa man du xar fa fuufa sax mënu ñoo xar dara bay xuuxal kenn waaw donc ñu ni ñoom foofu la koy jaar ban ko xamee ne nagu ñuul la xam xam na nagu ñuul la ña ko rey ca kër isa ban ko defee lu leen wax dan ni leen yéen nagu ñuul ban ko waxee taal dan nañ ci rey 80 kon xam nga ñoo rey 80 kon ñoom mënuñu dara ah benen bi euh, ñettel bi. ñu ñëw loolu taala bu ko defee cees moo ko jaral taala bu defee dugg ca biir bureau ba ni jaral na ko dee mais dafay dugg cees moo ko jaral donc bu nu demee ba gis ni am na foo xamante Thiès bu musaan a jël di relever nit ñi seen i seen i carte d'identité seen i kii naan leen da leen a soxla jox leen ñu nii dañuy leen di inscrire wala jox leen ñu dañ leen di euh, recenser génn leen seen i carte dañuy def ay nangam nangam jël seen i ak seeni i ak seeni i kii ak yooyu jël seen i def ko ci ay affaires yu doy waar yoo xam ni dugal ko ci lël ba maanaam di ko arrosé yoo xam ni kenn mënu ko tudd ah ay sàngaraak ay deret yoo xam kenn xamul lu mu doon keroog xasaw na keroog kenn mënul leneen mais bi ñu gisee loolu ñu wan ko ma dem fekk nit ci biir kii ma ne ko kii ma ne ko yow soxna si damaa bëgg ak diw ak diw ñu waxtaan lii ñu gis ñu koy dee ñu koy dindee ñun ma bu ko ay Ousmane yow yaa ñime. yow nan nga xamee loolu yëpp am na. dama ñi la dama ñi la la wane nag wu ñuul la wane tamit beneen nag wuy dund xam nga am yatara ak keneen ak suul na fi nag wuy dund te xam nan ko xam na nag te maanaam bu bëggeen bu ko kenn taxaw ñu dem ñu ñu taxaw mu taxaw ñu sulli ko génne yax ya wala boog mu doon defal ko pour tojal ni la tax mu def ko wala bu ko deful bu kii ñu dem ñu ànd foofu ñu taxaw yëpp ñu sulli ko donc xam nañ lépp ah, fii loo fi ànd ak nit def ko koo koy mooy wëlbatiku waxal la ko est ce nga fa ba parce que nit a ngi di waxal ni lu ñaaw ñu naan lu tax lii nangam wala muy sos di wax ay affaire yoo xam mais dangay ànd teg teg teg ba ci yàgg kenn wëlbati ko ñu la nangam ba nu ñëwee gis ko ñuy kenn du ko def journée lënd ma garde information bi ak ñi ma ko war a garder pour bañ bala ma ci kii mu am benn kii may négocier di néew nit ñi naan mukk jamais bu ko def boo ko defee yàqu-yàqule def nii def naa man leen toog ma ni Talla Sylla li ko jaral mu dugg fii. ci boobu nga xam dañoo dafa ante waaw dugg fa lakka ko mu def la ci kii kon man duma ma ragal man ngir li ngir ngir ngir wol waa Thiès ngir aar waa Sénégal kon dinaa dem fekk foofu foofu fan ko defoon maanaam ku ku jaar Thiès ci digg Thiès di romb danga koy romb moo taxoon nit ñi ñëw naan man danoo bëgg Idriss Seck xamuñ la la danoo danoo danoo danoo fonk Idriss Seck dañ koo dugal suñu xol suñu xel mi yëpp ci lay nekk mais loolu lan la jur bu élection jotee. mu dem tëdd fële ba élection jot mu daal di ñëw daal di ñëw rek jàll gañe ñu ni ah lii lu mu doon kenn xamul mais man damaa jóg nii dama koy dindi. mais euh, jotoo cee gisee ay sëriñ wala laaj ci kenn xalaatam amu ci amu maa dem man fekk ko fa ba ma ñëwee ba gis ko ma ñëw jël ay lawbe ñetti lawbe xam nga ma ne Idriss Seck ñetti ñetti la moo ko dese damaa toog man ma ma mais man. Ken mënu wax sa hmm dama tok ma ma science fii nga ñew ni fii moy kër mam Cheikh Ibrahima Fall fii le Serigne Abdoulaye Fall Ndar jóge dem nek khalifa mam Cheikh Ibrahima Fall ci kër gi fii ci Ndar Fall. di baye maam Cheikh Fall. waaw di baye maam Cheikh Fall Serigne Cheikh Say Fall ak ñeneen ak ñeneen Serigne Cheikh bintou Fall ah kon ma xam mam ñi ñom ci ki non donc su la que ni fii man may setu Cheikh Moro kan Serigne Touba kan mamu serigne abdou karim kan kon donc suma toge nyet ba xalat ne ñet ñet meeree ko dese té ci ñëral ma jëm jëli ñetti lawbe ousmane djum duma ma ma wax lu noonu ma tok ba 2h du matin comme li ma wax à l'université rek ñom sama gaay yi fa nekkoon ñoom baabaka les problèmes de l'université se règle dans la nuit lool la dañ wax mmh, mmh, mmh. donc amna fu ñu jaar donc mané nak affaire bi nak ci lay ma jóg jéem naa wut lu ne lu ko jéem a kii ak yi nit mais pexe bi ma am mooy loolu bi ñu yegsee ñoom ñu wër ko ma jot leen teg leen daal di pousse sama oto dem yóbbu fële toog di leen xool ñu jéem bi mu njëkkee dóor affaire bi dafa tëb bi bu na étincelle yi génn affaire bi daw nar ko xaaj mu daanu ma daw ñëw di leen wallu si ñu tiit man leen duñ ko bàyyi comme song nañ ko dem rek. seen seen mbiir la daal. waaw lël lël ba laa la daal waaw. léegi nag ba nu demee ñoom ñu jóg ñu wax ma ne ma am na seen benn maamu law bi met bu nu xam ci guddi gi ñu dem fëgg ko mu am lu mu leen jox ba nu ñëwee ñu wis wisal ko ci. ba nu ñëwee ñu dóor mu daanu ba nu paree ma jël affaire yi joggat ko ñëw jël sa affaire yi sëq ko ñu sama oto laa jël sànni ko ca àll ba yaa ngi dégg ma jóg man leen bopp bi jox leen ma ko ma jël bopp bi man téye ko parce que looy wax day leer ëllëg. xamoon naa ne bis dina ñëw ma kii ko ma ni kii sayee loolu moo koy def Cees ma ko jaral parce que Talla Sylla ma woon lan mooy patriotisme moom ci moom laa ko jànge xam ko ma jóg ci loolu ku nekk naa ma maytul maytul mais garaawul li benn yoon tiitu ma parce que su may ñëw sax ñu ne ba taxaw euh, euh, oto yi ma ko defoon yëpp a paan ñetti oto la am mais moteur bu ne teg nañ ko ci bu nu demee tuuti mu taxaw mais garaawul mën nañoo téye oto yi mais ñun koy mënuñoo téye dina dox dem xeexi dugg ci witiir dem xeexi dugg nañ kalandoo dem xeexi dugg ay taxi dem di xeex yaa ngi dégg mais mënuñoo téye mënuñu ñoo téye kon su ko defee kees moo nu ko jaral loolu tax na euh, bi mu gisee mbiri euh, euh, ñu ni lii am na lu muy lu muy wane bi nu ci tollee boo xoolee ni tey tojal na euh, ñi comprendre bi mu fi ñëwee ma jox la benn misaal euh, bu toogee ba élection jot wala muy dox ci nit ñi day joxe loxo fi mu joxe loxo cees mais jàll na parce que la mu fay wacc xam nañ ko mais kër Mame El bi mu fi duggee bëgg fay dugg fekk juróom may may may wër ci ki bureau yi ba muy yegg si man damaa teel a comprendre li fi xew bi muy dugg si man ca ca policier yi laa dem taxaw mais booy kër Mame El Hadji ñoo ko jàpp mais daq leen duma leen. ñu dóorante foofu te li may wax ci élection yi la kenn du ko weddi. législative yi weer mais ba mu ba ko ñooñu tojalee parce que mayuñu ko mu dugg ba mu duggulee mais dafa ñàkk centre boobu est-ce que da nga fi may waxee baax te li may wax kenn du ko dindi xeex ba waa kër maam hélas mën nañ ko teewee li may wax kenn du ko dijji ci tiit télévision laay waxee mais dan koo daq mu génn jotu faa def la mu fay def mais bi mu duggee yeneen école yi ay école teex ay yeneen école yi mu tourné. ay Medina Fall ay yooyu sànni na ko fa ay yeneen i feneen fu ko mayul mu dugg jaaru fa léegi nag yooyu lay def façon yi la dëkkee loolu moo tax fu mu nekk nii comme toj la na Thiès lan moo fi xew léegi Sénégal la bëgg a dem bu taali si la ne leen kii moom moo raw Hitler kii moo raw Trump da nit ñi nan comprendre ni mu noote waa Thiès noonu la bëgg a noote beneen dëkk ci Sénégal ak yeneen yeneen moo tax may wax waa Sénégal fu mu jëm nañ ko daq parce que li mu bënutu la def Thiès mu ngi koy jéem a def feneen kooku maanaam daa bëgg a noot Sénégal te munu ko boo xoolee kër kër kilifa diine yi chaque fois bu fa duggee bu génnee rek musiba lay wax soit mu bu jaale jee wala mu dem seeti kenn wala événement am wala affaire yooyu bu génnee rek def déclaration boo xam ne bu nee nit ñi ne ay kii li mu wax wala fi mu ko waxee parce que ni mu mel li muy yóbbaale buy dugg ci yooyu mais ñooñu yàllaa leen aar yàllaa leen sellal am na noo xam boo ko melee boo duggee si boo génnee rek dangay ngay fay te doota tax donc loolu loolu ko yuuxuloo tey jii nii li mu tojal Cees moo tax nga dégg ko muy mbel-mbel ci àll bi taxaw di wax yoo xam kenn xamu ko di dugg ci ay sisonam pétrole bee gaz bi nga petoo fële nanga comme moom yooyu la xam ay petoo ay dil defe ne ay ñun eh, Mauritanie dañuy ñun ni ñuy petoo ak métadali ah yaakaar naa ne Sénégal président Macky am na ful la joo xam buy def ak dara ci Mauritanie danaa ko xii ngi dégg ci dexu fuuta gi lay taxaw defar ko yaa ngi dégg du dugg sax biir Mauritanie dexu fuuta lay taxaw sañ a fa la fay sañ a wàññeeku pour wàllu mën na bañ a dugg sax territoire ba muy daakaar day dem foofu di ay dil kon donc yëpp ci ay ay ay ay yàqute la la kii léegi nag lu mu mënul am Thiès lu mu mënatul am Thiès dem na bëgg koo def li ko nàngam léegi nag sénégalais yi ñoo am seen fulla am seen fayda fu mu dem fu mu jox loxo dox toxoj bu ko jox ku mu dem fu mu dugg nan ko dàq nan fu muy àndal nan xool oto yi nan leen surveiller nan leen topp parce que lan fa bëgg a def loolu lan bëgg a def parce que ñoom loolu la ñu gëm. du xërëm lañu gëm léegi nag ñun waa Thiès le fait que loolu mu doon def loolu toj nañ ko dindi nañ ko yàq nañ ko Thiès ñu ko jaral luñ ci góobee gar ko et puis et euh, euh, voilà ainsi va la vie ñun ñu libéré peuple thiessoise population thiessoise ñun loolu lañ gëm loolu tax na loolu bi mu amee mais euh, maw ma taxaw ci digg promenade des Thiessois won ko Thiessois yi c'est vrai que nag. am na ñoo xam ne sensible nañ am na ñoo xam ne sensible nañ ci loolu am ñoo xam ne kii mais il fallait nga wan leen li leen waa ji dotoon li leen waa defoon ba bu demee tëdd sax ñu woteel ko xam nga loolu mënu woon a nekk neen gis naa koo xam ne bi ma demee ci guddi gi ko mun ma ñu ah man de danoo jaaxle parce que gis naa nga kii borom kër gi day taxaw ci bunt bi gëtal leen ñi leen ku fi wóotalu Idriss Seck du du doo ñëwee doo añ nangu na dépense sax. ñooñu tey jigéen ñooñu dañu ñun lii mënu woon a nekk neen mais jot nañ ay borom kër yu ñu bind ay message daal ni jërëjëf man maa sama xol a ngi denc moom maa ngi xëppeeku kon man mii daan song ci moom di nangam ndakate lii doonu woon neen mais loolu dañuy jot message yooyu ah mais euh, li li nu dindi ci cees li ma la wax danoo wallu waa cees aar waa Sénégal loolu moo tax loolu lañ ci jublu woon mu def noonu su ko defee euh, bu taal si la waxee ni. dal président Macky Sall sax mo gën ki c'est vrai parce que dal président Macky Sall jóg na di dox jam ci Sénégal ñom jamono bi ni regroupé fi fi naan dañuy tal place de l'indépendance dañuy def ni pour Madi mom mi ngi sol talam dox di dox jam di dox lu jël jëmele Sénégal ci kanam ya ngi dégg kon légui koku jël na jël sol talam mag ñi da ngay wax sax ñu solo sa dal nga dox sa ni bul set li bul def ni solo sa dal hein ah? kon bu taala tuddee dàll bi nan xool dëgg dégg-dégg bi dàll boobu mu gi da koo sol jóg dem bitim réew wutal Sénégal dara dàll boobu moom dafa da ko sol pour pétrole bi ci Sénégal bi gaz bi ci Sénégal mu dem pour ndaw yi mën a am dara ëllëg Sénégal am yaakaar pour que dox jël dàll bi sol ko pour Sénégal émerger dàll boobu lañ bëgg ñëw ñu dugal ci suñu tànk ñun waa Thiès pour que Thiès émergent am yaa ngi dégg ñun loolu lañu gëm léegi nag ki nga xam nag moom dafa jóg. yor leneen mel leneen bëgg a noot Sénégal loolu tax ñu ni ko ak jikko jooju ak ni mu ko bëgg a defee ak liñ liñ gis moo tax ñu ni dàll bi sax euh, moo gën kooku kon loolu dëgg la c'est c'est c'est vérifiable donc du wax yi euh, li muy wax wax na ko euh, ñun malheureusement li nu dal dafa metti ñun ak Talla Sylla dañ fee nekk ci génération boo xam fii ci Thiès ñoo tombé pour war fee jëlee Idriss Seck c'est dommage. maanaam maanaam Ousmane. da nga wax Talla Sylla dafa def plus de 40 ans ci terrain politique bi. xeex na moom waxal na ko boppam nee na doon nañu ko ay balu fetel def nañu ko loolu pour arrêter ko mais yéen nag tey da ngeen ñëw rek pour nekk ay bay Fallou Thiès. Euh, euh, du nekk doon la dañ koo doon donc loo nekk tey mën nga man mën nga nekk leneen ëllëg ñun du ñu nekk dañuy doon moo tax ñu ñu doon Baye Fall yi yi ñu doon moom la ñuy def léegi nag malheureusement. Euh, fi nu takkee laxasaay gi waar wi ndajeel mais dina dégg lu ne président wax na ko ku nu tàccu ak ku nu saaga la nu yemale donc euh, tey jii ñun ñoo tombeek génération bi war a dindi Idrissa Seck dina dégg lu ne lépp lu muy résister sunu kaw lay dal dañ koy nangu mais c'est pour libérer ñi war a ñëw moo gën ñu koy bàyyi beneen génération boo xamuñu ko te ñim fiy formé di leen fi teg.

jël position bi nga xamante ne nii moom la Sénégalais yooyu mu leeral ko contre Idriss Seck ah loolu dafa am lu muy lu muy lu ko war a tekkee mooy bu nee Macky président Macky Sall la ce qui veut naan ko waaw góor waaw góor na kun ko wax daa am loo def da nga nekk di def dara ñun la waaw góor mais kee xam ni deful dara mënul dara xamul dara nga ni ko jéemal dara wóorul waaw góor moo gën jéemal ya ngi deg and ak président mo gën dem di wuti président li fi am mais and ci ah mo gën ngay wuti. manam yeen da ngeen gis ah, waxal fofu yeen da ngeen gis ni njeriñu ties wala njeriñ li ties mëna am moy and ak Macky Sall. xam nga njariñ mom ci katan rek ak kom, dañ koy natt fenn mais gën li gën ngeenel bi lañuy wax man duma wax njariñ parce que li la jariñ tay man na la baña jariñ ëllëg ah mais ngeenel bi lañuy wax man. damaa bëgg ñu xam ni ngëneel bi mi ngi ci cees jóge ci loxo yi mu nekk ñëw ci yi parce que ku lay wax wër Sénégal naan la wutal am orange ngi nii bokkul ak ki nga xam dalaa jox tege dege yaa ngi dégg ki la jox tege dege yow war nga cee mën a maafe di nga cee añ war nga cee mën a ngalax ci koor gi nga xam ni moom lay sunu kii karam bii di ñëw mën nga cee ngalax yaa ngi dégg mën nga cee mën nga mën nga cee cere baase Yang gede ah lu ne man man nga ci ay man nga ci trouver ay reer ndek dessert parce que ngalax dessert la. Ya, Ousmane orange nag mën nga ci am jus hein mën nga ci am boisson lolu ken mënu ko dundé bala nga dessertu da ngay da ngay fekk ma fe ki joxe guer dege gi nak mom limi proposer amna am amna reer pas ndeki amna amna ki parce que dañuy ci ré parce que dañuy ci ré da ngay ma fe ah, wala nga jël am nga soa sax parce que bu la nexé nga dëxin tu vois donc yoy dama lay wani la lolu moy réalité bi amna yo xamni Euh, du hasard hasard amul yaa ngi dégg bu la kii ne ñëwal ah daf daf dafa marron demal kun la dafa orange dara wóor ci bañ naa ko ba sax boo demee di dawal oto boo dawee ba ci feu orange sax wóorul yaa ngi dégg kon danoo war a tey ci mbiram ki nga xamante ni moom dañ koo jox caisse d'avance caisse d'avance lan ko caisse noiru jàmbur baal ma ma naan caisse d'avance caisse noiru président Abdoulaye Wade la doon xëccoog moom kooku ñu jox caisse d'avance caisse noire boobu muy xëccoo caisse noir bambur kooku boo ko falee caisse orange lay defar comme nag caisse caisse orange lay def bëgg ciy xéwal ba ka nangam ñun dinañ ko wutal fii ay caisse orange ci ci ci ci ci promenade bi yóbbul ko ko ñu ñëpp caisse waaye ñoo jël ay orange jël ko yóbbul ko ko ci campus bi nga xam ne moom la war a jël ëllëg jox ko ko foofu mu deseeroo ko fa mu yem fa ak foofu moo gën suñ ko bàyyee ah dafa wóorul kuy xëccoo caisse noiru jàmbur bu xëyee yow yaa ngay préparé caisse orange te loolu wóorul nag ki nga xam ne moo fi proposé tege-dege gi nga xam ne nit sénégalais yëpp mën nañ cee gis seen bopp lekk ci jokk ci ba yokk ba kookoo gën a wóor bala ngaa proposé ay dessert am loo def kon nag li ñuy def léegi c'est de l'utopie ñoom li ñuy def donc man loolu laa am lu may lay leeral te xam naa ni sénégalais yi bu soobee yàlla surtout waa Thiès nan xam ni euh, tey jii lu mën di xew li li li gën comme li la wax na gën. li gën ci Thiès ah euh, mooy mooy mooy li nga xam cees Thiès wu na Thiès def na lu metti Thiès nekk na ci combat yëpp mais tey jii combat Thiès tey tey ci biir Thiès la. ci biir cees la parce que Thiès daraan jàkkaarloo ak yi nit. tey nag Thiès war a simpi xam nga te booy simpi nag kàttan géeg yëpp dafa mën a am te bu soobee yàlla dina deñ alors Ousmane euh, tay li nga xamné ñu ngi ci euh, campagne électorale parce que bo xolé li xew euh, ci jamono yi rek manam campagne la parce que ñu ngi wax nañ ko sank Idrissa mu ngi ci biir Sénégal di wër ci yenn dëkk yi mais également opposition bi tamit jóguñu bàyyi Macky Sall rek. nanguma lool nanguma lool loolu. Hmm. damay tudd nga ci Macky Sall tout dama lay wax né koku dafa dem. di nemmeeku ay sénégalais ay kii di contrôler ay liggéey yu mu santaane c'est normal président boo xam da ngaa santaane war a dem pré préparer sa bilan. Euh, pour dem campagne deux mille dix neuf mais c' est normal Sénégal gépp mënoo ko wër ci at ah il faut que nag mu jóg fu ne fu mu demoon bu doon quatorze raisons la wala euh, wala kii yooyu donc bis bu ci ne euh, fii mënul ma affaire matul quatorze mois donc nañ jàpp ni kon weer ne am na raison bu mu war a mën a dem dindi ko kon loolu mu jaadu ci dix mois yi. nga xamante ni bu ñëwee ci élection yi dina ni man li ma defoon sant na moo gën mu toog euh, euh, naan man ma woon léegi nag buy génn nag opposition bi tawaasee di wax mais kee day xool li mu liggéey beneen bi ci des mooy li ma nanguwul mooy Idriss Seck mi ngay wax mais Idriss Seck dox kiiwul mais koo xam ne yow waa Thiès bi nga xam ne ñoom ñoo lay dénk ndomba tànk bu ne yow nemmeekoowu leen xam nga danaan sàmm alaar mooy. comme man man nan ma wax ni samba alar la su ko am na xam bu le ñu ni man peut être dama leen a leen ah kok suñ mako xasse kon parti ñooñu ñooñ ñoo gis lolu ya ngi deg mais ties nak kon am na xamanteni xamante ni dañ samba samba amna, samba sàmba amna samba takawalu amna, samba takawalu na sàmba sesek. Idrissa sek lan la ko doone parce que yow ties gi nga dëkk yow demo yow nemeku, len ñom ñi ngi naan mère fantôme di la jiiñ lolu nga dem ci wa Sénégal da nga leen nemeku mais wa Sénégal fa nga dem ca Tamba ak ca fatte ak ca Kolda ñom leen rek la leen wax bu ñewé ñu leen ana waa Thiès fa muy ñàkk dëggoo ñanga fa te te teewu fi du fanan sax ma nga xam nga famu dekk dëkk te tool ba te bu fi ma nga te dem lool dina ci ñew benen bi dess moy bu ne ana waa Thiès bu dëggoo xanaa danaan gisuma leen nan di dekk te loolu nako wax léegi ñom est ce que ki nga xamni yow dekk ba nga dekk defal lu ne nga ko wiq moy rejeté ay budget di tek ay complot contre cette ville bi nga xamne ne la jox lu ne ba pare nga wëlbatiku yow sa wal bop di ñëw di dem ca ñoñu naan leen jox leen ma boo leen ma joxe dina nangam mais ñoñu mënu la gëm légui limay wax ni ay doolu ay dóor la parce que amna na xam bu élection jotee dañuy parier président bi mo xawa ki kii ko neexal ben 200 millions pour mo wat ni baax ay gaa am xam joxe naa keneen ki naa ko jox benn millions ki ni yaakaar ci nekk ak keneen ki nga xam ne moo war troisième personne dix millions pour mu xam bu affaire yi ñu influence daa am ay parieur lan mais dama leen wax waa yéen la bëgg a dóor waa yoratul dara amul dara la mu jëloon ca caisse noire ba ci compte numérisé la def amul liquide te compte numérisé mënu ci am accès yaa ngi la preuve en est que li wax dara kenn du ko dindi fii bi ñëwee def passation de service bi fii war a dem camp Talla Sylla moo ko daggal billet Talla Sylla moo ko daggal billet d'avion te li may wax kenn du ko dindi dagg ko ci agence bi ñu yónnee ko ci mairie Talla mu def takk mu jox ko ko kenn du ko dindi billet d'avion bi bi mu voyagé Talla Sylla ko ko daggal ba pare li gën a garaaw ñu toogandoo ci benn benn bokk benn vol saa yi waxut moom ni këj waaye am na lu xew ba mu defee noonu wàcc pare sans mu wax leen ñi leen dinaa kan laa jëm. dafa ñew xam amna ko doon def ben sorte ay jamono di wax loolu mu xamul mais mais mais mais bobu da waron ko wax deug gi ah bam leen waxe taal dagal ko billet mu dem ba mu demee dafa dem wàcc aéroport ba sans wax leen ndakate a programme ne ku ko war a jël si euh, fële yóbbu ko Paris sans mu def noonu xam nga tubaab dafa xariñ mission la gëm ci chauffeur bi leen yónni indi leen ka pour mu yóbbu leen chauffeur bi ñëw yore liste bi gis kenn ko manqué mu wax ni am na ko daw comme gars yi bu amé visa daw mais ñu ñu annoncé ci aéroport bi imagine loolu comme quoi que am na ko daw wa ñu arrêté ñu dem ñu daw ñu dem xolé Idriss Seck fek muy muy ancien premier ministre Sénégal mais loolu dara gënu ko graw après mu dem ba mu démé teud fa ba mu neex la ñëwal ñu war a ñëw camp xëy suba bëgg dugg ci ba mu wéré ñëw ànd ak chauffeur ak ak soxna ay ñeneen bëgg dugg ci ñooñu ba mu bëggee àcc parce que booba ministre ba fion mo waroon na ñëw foofu mais waaw waroon na fa ñëw. bi gars yi ne protocole ministre bi dañuy xool ñi nga xam ñoo ci bokk mais comme bokkul woon tubaab yi waa camp seen délégué pro proposé wuñ ko fële ci waa autorité war a ñëw parce que dañoo war a remettre affaire bi parce que tubaab dañoo respecté protocole ba mu ñëwee comme Sénégal fii ñi ñenn ñi ni respecté protocole alors bi mu ñëwee euh, mu ñëw gars yi xool gisuñ turam bi ñëwee dañ ko doo dem. ñu ni ko xolal waa kan direct parce que ñooñ tamit dañ ko yàgg mere parce que dafa nekkoon maire te musu faa teg di signé dara yang ko ba jata rek la nank te musu ñoo gis maire Thiès loolu waa kan jàppal ko loolu mais bi ñëw ndaw si dañ ko y que le maire de la ville de Thiès euh, qui peut débloquer la, la situation léegi nag bi nu laajee taalisi la waay waay sama waa ji maa ko maa ko gëm mo fulla jaak fayda ja bi ko laaje ndax ñu joxe fo or ñu wax ndax mu ki taal dañ leen c'est pas la peine kon baatu xeex bi fa la commencé. wax rek c'est pas la peine ah xoolal noonu la Idi jëlee ay kii yam dem yaa ngi dégg pour te dire que ni ah 100 yi mu jël sax ah ban ñëwee amuñu fu mu tëdd fu mu kii sax kenn réserve hôtel xam nga moo am na ko fi wax loo xamu ko réalité bi 100 euros yi mu jël am ku mu ko doon jox sax ni ko wutala pour sama chauffeur am na koo xam te koo may ñu ko bàyyi ma fanaanoog chauffeur chauffeur ñu am ku ñu génne chambre ba jox jox ko moom ak ak ak soxna ak keneen ak keneen yooyu yëpp fekk nañu fi. yépp xam nañ ko yaa ngi dégg moo tax ñiy mbel mbeli xamuñu li ñuy mbel mbeli beneen bi mooy lan benn moment la jokkowaat ak Talla la mooy bi mu bëggee toog Paris comme billet bi aller retour la nga xamante ni daa war a retourner waat daa war a euh, prolonger séjour am ci la ko woo pour que juste jëm ko prolonger parce que xamul agence ba amul fu rek ko man mu defal ko ko yaa ngi dégg loolu moo waral ah euh, mu jokkoo ak moom après Talla jël kii bi yónnee waat ko ko yaa ngi dégg te loolu lépp mu ngi fi tey jii kan mooy weddi loolu kan mooy weddi ni ni Talla la moo jël alalam jëndal ci biir kii kiyam yaa ngi dégg indi Seck kenn mënul weddi ni Talla Sylla moo financé campagne bi ci ci ci kii bi xam nga may wax baax moo tax am na ñoo xam xamuñu dañuy mbel-mbeli ah te loolu seen li may wax rek li Talla seen courage c'est digital yaa ngi dégg c'est numérique yaa ngi dégg eh, ci Facebook yi lañu nekk di saaga ci rajo yi lu xew ci dëkk bi ñu ne li xew ci dëkk bi mooy nangam neexu ñu taxaw di dàggali nday lan moo la taxaw ci clavier ci whatsapp bi di waxante loolu mooy seen combat te ñun suñu combat ci terrain bi la ak preuve yi leer ak jaar-jaar ak jubal jeex na léegi lu nu bëgg lu nu bëgg ñoom nan ko wax parce que ñoom li ñu bëggal es baaxul am ñu bëggal es lu baax ñoom ñu taxaw di nangam loolu mo li mooy affaire bi alors euh, Ousmane euh, léegi seen candidat mooy Macky Sall bi euh, campagne bi da ngeen koy lawal ba bitim réew parce que ñëpp xam nañ ni bëri woo looy toog Sénégal waaye heure boo nekkee Thiès rek da nekk sur le terrain est-ce que campagne bi da ngay moye la mayo ba bitim réew. waaw boo waxee campagne rek sama xel day fàttaliku ci ci campagne bi fi amoon 2000 2012 2012 déggoon nga fekk foo wax naan foo foo foo idi foo pré président ah. di angale la lak non e nangam manam ñun lolu xam nañ ko euh, lolu fu mu joge de nga bax li tax ak ak affaire campagne ak affaire jël nit ni may sama nangamu campagne xam nga lak xam nga bu la laké anglais nga am loy def loolu dinañ ci ñëwaat ci benen jamono ya nga dégg dama lay wax rek pour te dire que loolu dinañ ci ñëwaat xam na ni bi benen légui mais bi mom la tax mu fo président fu mu non dinañ ko gënël sénégalais yi dana leer ya nga dégg ta dinañ ko wax nak te lépp nag bëgguñu kii nag waaw léegi nag ni ma leerale njatt Cees bi leerale nangam dinaa leeral man ah idi foo président bi fa mu jóge waaw yaa ngi dégg fa mu jóge nag te am na te te may xamal nag eh, waa ji dafa préparé woon kan moo war a nekk première daamam waaw ñépp am intérêt idi nekk président sëf Ndey Penda lu leer laa la wax ñëpp am intérêt madame Sek, amul intérêt sax pré euh, Idi nekk président kon ma waaw man xamna li ma la wax. Xamna naa li ma la wax ma ban yegg ca Ma ngi xaar ban kan lay nommé kan mo waral ko jiite campagne am bi rek ak yoy. ban yegg ca. président Macky Sall son excellence moy sunu candidat euh, ci élection yi ñu jëm euh, ci présidentielle 2019 et bu soobee yalla sunu combat ak sunu xalaat sunu xam-xam sunu alal sunu jot sunu lépp consacré nañ ko ci depuis mois de euh, euh, décembre bi rien que pour mu jàll premier tour amuñu beneen objectif donc su ko defee euh, fu mu laaj fa la ñuy dem donc bitim réew ak biirum réew yépp la xam nga lan lan lan bitim réew biirum réew xam nga lan mënu ko gënal mën na mu réew mi waaw waxuma réew réew mi de am na ñoo xam ne réew réew mi leen bind yaa ngi dégg ñun réew mi lan sunu dëkk bi lan wax ñun Sénégal yaa ngi dégg am na ñoo xam ne danoo defe ni xam nga xam nga réew mi orthographe bi du noonu ñoom réew mi leen bind waaw te dara du ko dindi nag waaw moo tax man la réew mi amul campus bee am waaw di wax sénégalais yi euh, ñu ràññee euh, li nga xamante ni nii mooy situation bi euh, ñu xam ni dafa am ku bëgg a yokk ba yëg ko ba sénégalais yëg li mu def da ci am lu mu ci bëgg a yokk ba sénégalais yëg muy président Macky ak ñeneen ñi nga xamante ni danoo mer ngemb ak ñeneen ñi nga xam danoo bëgg a jéem waaye nag am na ci ñuy bëgg a jéem ak mer ngemb war nanoo seet ni ki nga xam ni moom moo tojle moo yàqule Cees muy Idrissa Seck nan jàpp ni dafay wax sénégalais yi moom maanaam li ma li ma gis ne moom li mu bëgg mooy sénégalais yi fal leen ma pour la ma Ablaye Wade yóbbu woon ca kaso ba ma fayu fal leen ma pour Macky Sall mi nga xam dama am ak moom problème ma fayu sonal njabotam pour talisi la mi nga xamanteni ni moma feñal samay jëf ay jëfami ñaaw ma ma defante ak mom Ousmane Diop mi nga xamanteni ni mom moy euh, lu mu wax moy moy défendre askanu Thiès ma tër ko serigne si nga xamanteni ni maanaam ñoom xam ba diko maytu mu ak ñom kon ñeent yi su fekkee ne dafa nekk ci nit nan ma wax koo xam ne bu la saytoo juboo Ablaye Wade juboo taalisi la juboo njiitu réew mi jiitoo ak maire bi nga xam moo moo nekk sa dëkk taalaa ko yilif ci taalaay am tey ji bu gën extrait naissance moom taalaa ko koy signal munu ci dara yaa ngi dégg donc respecté woo njiitu réew mi respecté woo maire dëkk bi respecté woo kilifa diine yi ki nga xamante ni yow euh, jote nga ak euh, ñëpp Ablaye wad kon kooku boo ko falee kan kon koku jarna may koku jur fal len ma pour ma jotté ñoon ñep té Sénégal jamm lan fi bëgg jamm lan fi kon nit ñi xamni jamm ji fi la mo gën ñuy fal ko xamanteni ni wala ñukoy jema fal lo xamni ifit la mais nak amna lo xam amna xam nga pétrole ak gaz mom bo ci safar rek kose rek mu tak lim bëgg xam nañ ko té man lool duma ko may té lool motax ma commencé dugg ci jeunesse bi Thiès té nak mi ngi wax di wax fe fek day jema orienter nit ñi fe fek am lu nas li nas moy da am ñu mu lëkkalikool ci bitim rew pour ko ñoñu war ko jox lu ne jikko lu ne motax may wax suñu service de renseignement yi ak ñeneen na ñeneen ñu xarañ ci lolu ta ma ngi avertir état nak ndax ñoñu bëgg na no ngemb nga xam bu ñëwé mom bu ñaké day taasante lolu mu ñaké élection yi bu motam bëgg bok rek motam na yalla bu mbok ndax da bëgg bu ko tafantalo ñak ñooñu jox ay koppar mu ñëw xeex utiliser ay ndaw di xeex ci dëkk bi naan da boole ko ñi nga xam danoo mer ci beneen côté ba amuñu liñ bëgg ci seen seen candidat wala ci seen parti moo lëkkalikook ñooñu pour jéem a yëngal dëkk bi su ko defee bu yëngalee dëkk bi day toog négocier daan ni nan ma jox lii nan ma jox kii opposition wala ma jox lii pour pour bëggaat kàttan bëggaat suuful parce que moom fii lay jeexee fii ci promenade bi lan ko la la lan ko defee koy def lépp lu defoon fii comme fii la ko defee woon fii lañ ko tojalee léegi nag kooku day bëggaat survie loolu moo tax nag may avertir sénégalais te nag ñun lu nu wax lu nu wax dañ naan ñoo ko ñi may wax waaye du dëgg kenn kenn mësu koo gis mësu ñoo wax muy dañ kon taala moom it ba muy wax 40 ans ba léegi mosul wax mu dañ kon bu nàmpalee ci loolu ci politique ñun lu nu wax du dañ jërëjëf. voilà mbokk yi xarit ñu doon seetaan suñu émission homme politique euh, ci Thiès Info ak Thiès TV ñu doon dalal Ousmane Diop di responsable politique ci Fal Askan Wi di leen jox di daje ci beneen numéro incha allah.